Sénégal ngi leen di nuyu ñu ngi leen di béggee ñu leen di safoo ñu ngi leen di ñaanal yàlla jàmm ñaan yàlla borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu ñëpp defal ñu jàmm ci darajay Seydina Muhammad mbokk yi mu ngi noonu émission keppaaru siira nga xam ne dañu ko jël jagleel ko borom rañaan gi dañu koo jël jagleel ko këcc Madinatul Munawwara dañu koo jël jagleel ko tabaarakallaahu sangi àdduna ak àllaaxira mooy waaja ca Madinatul Munawwara moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbokki nag waxoon naa leen émission keppaaru siira nag moom damay dugg ci ëtt këru diine yëpp ndax koo ci dugg rek yuntu yàlla Muhammad la yéegoon koo ci dugg rek Moustapha la doon safoo koo ci dugg rek njol màkk la tànn tabarakallahu boo demee ci Cheikh Ibrahima Niass Baye dafa wax ne bu ngeen ma laajee sama soppe bi laaj ma sama sang bi laaj ma ki ma yaakaar tey ëllëg muy rasulullahi fa yin tas alani xanaa bii bii wa sayyidi fataha habibullahi mu laaj mu waxoon ne fa waxti wa saati saraftu li dikri salatan wa mat an xar si tujay la ma sama waxtu samay heure soppa ni naa ko jox ko sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wa salaam waaye nag Cheikhul Khadim waxoon ne fi ma toog laa toog ñu woo ma orienté ma ne ma kaay tagga rasulullahi ma dem ba nikki mi ndaamam ñu ma woowee xaadimu rasul daani ila bi nabi wa buzaati li waj illazi bi bishrin wa am nin alxafa wax ne njol màkk daal douze mois moo am six mois ma koy tagg six mois may julli ci moom salaatu sitta bi mat i sitta waxoon ne antal kërimu anal xadimu dëhëral udimu fekka sanaa yi kooku nag tabarakallahu mooy bàyyi basak baara ahmadul xadim waaye Cheikh Alhaaji Malick waxoon ne it nag sama waxtu yëpp amul lu mu ciy sànq lu dul kenn laa ko jox moo rasulullahi xaddamtu xayran wa ma dayatu min omrihi bi zikri awsafin suudin fi maqaamaati yi mu waxoon it ne moom Alhaaji Malick si ci noonu ya ne sama addu àdduna heure bu sa géej gi di baaxoo di nax ma bàyyi la fi géeju ku ñu wóolu ki dafa sellu dafa neex falaa laa jëm ma téemaa daanam baxaru ki min ku duurin fasaafin salsalun baxarul amini mu waxaat ne fa dundiyaakumu hëkkumu ida aqadil qada ani dawri min daal xabibi xallilu Cheikh na Saad bi nag li ma wax léegi nag tabarakallahu dama leen di bàyyil nag ki ñu dalal mu wax leen léegi tabarakallahu lan la Cheikh na Saad wax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi nag tey ba tabarakallahu tey spécial yuntu yàlla Muhammad la ak Cheikh na Saad ñu ànd nag nag tabarakallahu Oustaz Mouhamed Fall mu baax mi mën a waxtaane yuntu yàlla Muhammad mën a bégal ñëpp nag tabarakallahu ci Cheikh na Saad léegi léegi nag tabarakallahu la ñu koy dugal mu bégal ñëpp ñu bàyyi Muhammad mu nuyu Muhammad asalaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salaam aoudu billahi min ashari shaytaani irrajim bismillahi arrahmani irrahim mhm. alhamdulilahi rabilalamin arrahmani irrahim maliki yawmi ddin mhm. iyaka nabudu wa iyaka nastain mhm.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 wa nabiyina muhammadin alladi huwa li charri miglaaqi wa li xayri miftaax dëgg la wa ala alihi wa sahbihi ulil balaaxi wa najaax dëgg la oustaz asalaamualeykum wa rahmatullah wa aleykum assalaam wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala fi mu ne nii temm nag ñu ngi en direct leeral tv ci keppaaru siida maa ngi lay nuyu oustaz nuyoo bi nga xam ne yàllaa ko jox jullit ñi mhm. yàllaa ko jox ñi gëm yàllaa ko joxe ñi nga xam ne dañoo seen àdduna dafa leer ba noppi mhm. nuyoo bi nga xam ni képp koo xam ne yaa ngi koy nuyonteeg sa moroomu jullit rek mooy yow bëgg nga yàlla subhaanahu wa taala sax nga ci ndigaluk yàlla mhm. baad audu billahi min alsheytaani irrajim wa ida xuyitum bi taxiyatin fa xayu bi axsani minha wa rudduha mhm. inna allaha kaana ala kulli cheyin xasiba dëgg la boobu ñu ngi koy nuyoo képp koo xamante ni bokk nga ci xayru ummatin uxurjat linnaasi ta'muruna bil ma'rufi na tanhawna anil munkar dëgg la xeet boobu du xeet benn bu dul xeetuk sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam yaay ba am benn yaay booy bu ñëw ci yent yàlla Moussa alayhi salaam mhm. ñëw di jooy Moussa ne ko looy jooy mu ne ko sama doom moo génn àdduna dafa am juróom benn fukki at dafa am juróom benn fukki junni at ah génn àdduna Moussa ne ko santal yàlla am na xeet wuy ñëw ku ci dund téeméeri at ci coono ngay nekk waaw mu ne ko déet sax nga ciy gis lu néew ñoo ci dund téeméeri at mhm. mu ne ko ban xeet la mu ne ko xeetuk Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam xeet boobu mooy ban xeet mooy xeet bi yàlla wax ci alquran ne xayru ummatin mooy mhm. gën gi xeet uxrijat linnaasi maanaam daal ki ñu bëgg a waxtaanee ki ñu bëgg a waxtaanee xeetam moo gën ci xeet yi moom rasulullah ndax alquran moo ko wax yàllaa ko wax xayru ummatin uxrijat linnaasi taamuruuna bilmaaruf wa tanhawna an il munkar dëgg la dëgg la xeet wi gën ci xeeti mooy xeet bi nga xam ne mooy digle lu baax te sax ca waaye tere lu bon te bàyyi ko kon nuyoo boobu ñu ngi koy jël toog teg ko ci loxo ñi nga xam ne ñoom ñoo yilif àdduna ñoom ñooy yilif fépp foo xamante ni deret yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi foofu uh-huh. muy waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yàlla wax leen ci alquran ne qul la asalukum alayhi ajran illa almawaddata fi alqurba uh-huh. aaya boobu bi mu wàccee saxaaba yi laaj ko yow ñan la yàlla wax nañ leen a bëgg nañ leen topp mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam woo limaam ali woo sittuna fatima xasan ak xuseen muur leen mantoom boobu burda ba mm-hmm. ne ñii la yàlla wax nañ leen topp moo tax ca xutba bu mujj ba mm-hmm. ba mu ne itrati wa itrati mhm. ñu ne ko ñan la mu ne itrati mooy sama waa kër mhm. na ngeen topp ñan sama waa kër te na ngeen jàpp alquranul karim jàpp ko mu nga xam ne képp ku ci jàpp rek raw nga mhm. mu ne nag sallallahu alayhi wa sallam wax ba tey ne sama waa kër gi képp ku ci jàpp di nga raw di nga taxe man rek waxaa najaa nan nga ciy texee comme ne gaal gën ci yàlla nuux nga te yàlla waxoon ne képp ku ca yéeg di nga texe waaye ku ci yéegut da ngay texee di mhm. ba doomam ja des ca te texee dina kon nuyoo bi ñu ngi koy jox képp koo xamante ne doom yeneen ci bi nga sallallahu alayhi wa sallam mhm. ndax dafa am doom ci bi ci deret am ko ci taqwa képp ku ragal yàlla yeneen bi sallallahu alayhi wa mooy sa baay waaye képp koo xamante ne sallallahu alayhi wa mooy sa baay ci deret yow yaa yilif àdduna kon ñi ngi jël yooyu bi di ko teg sa loxo ki nga xam ne nag moom mooy njiit li fii ñun ki ñu topp muy xalifa cheikh na cheikh saada bihi mm-hmm. mooy cheikh na cheikh saad bu taqiyullah mm-hmm. yaa gën ah ay dara ñi ngi koy ñaan yéen bi nga xam ne yenu na ko yàlla na diis ba maama mën ko koo taawul mhm. di nuyu sama bunt ci waa Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam cheikh na cheikh maamina mhm. doomu na al xataab doomu cheikh na Mouhamed Fadel mhm. doomu cheikh na cheikh al mahfou doomu cheikh abba doomu cheikh na Mouhamed Fadel ibnu maamin maa ngi koy nuyu di ko di wax ni nag képp koo xamante ne doomi neen ci bi nga di jël nuyoo bi di ko teg ci loxoom mu nuyu ñëpp kon asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam na xaddimu xuraysan wala taqdimuha wallahi tabarakallahu mbokk yi mu ngi noonu tabarakallahu oustaz Mouhamed moom la ñu dalal ñu jagleel ko nag tabarakallahu spécial nag Cheikh na Saddu waaye Cheikh na Saddu tabarakallahu mook rasulullahi mhm. mu ngi noonu nag mu ngi tudd sëttu Seydina Mouhamed yi nga xam ne yàlla daf leen gënal ndax njool màkk ci boppam tabarakallahu moom la yàlla defal jël ay sëtam def leen li mu leen def mm. dégg nga aaya ba ba yàlla muuree tabaarakallahu seydina Ali tabaarakallahu mm. seydina Fatima ñay génn ca ñoon nag mooy tabaarakallahu njaboot gi di sët gi nag sët yi nag tabaarakallahu mm. moom dañu bëgg a waxtaane kenn ci sët yi digganteem ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam boo ko mi ngi noon keppaaru sira ni rek lay demee oustaz Mouhamad tabaarakallahu bu ñu lay laaj daal seex na sàddu xertu nan la bëggee rasulullahi nan la bëggee maamam ah ni mu ko bëggee moom mhm. bëggam gi kawe na waaye lépp daf koo teg ci bëgg gi nga xam ne moom la yàlla bëgg yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam yàllaa njëkk bëgg yeneen bi ah. bëgg gi ko bëgg tax na ba yeneen yeneen yi gàcce la ci ñoom mhm. yàlla jëlee turam taf ko ci turam te ñoom nanguwuñ loolu mhm. xaw ma ndax dégg nga wax jëm déet gàcce la ci ku nanguwul li yàlla defal sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yeneen yi ñoom dañoo def réunion seen biir yàlla convoqué leen. Mhm. moom yàlla moom moo présider réunion bi ne leen su ngeen bëggee yéen man def leen ay prophète ay yenent da ngeen di d'accord ni bu ngeen wàccee da ngeen di liggéeyal yenent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam alquran nettali na suratu ali imran wa id jamono bi nga xam ne axada allahu mithaqa nabiyina lama aataytukum min kitabin wa xikmatin thumma jaakum rasulun musaddiqu lima maakum la tuminuna bihi wala tansurunna qaala aqrartum wa axadtum ala dalikum isri kon na qaalu aqrarna yàlla sax daa bokk ci seede boobu qaala fashhadu wa ana maakum min ashahidin waaw kay wa xaltum ala dalika bisri qaalu aqrarna ñoom ñëpp wax nañ dañuy wàcc bu ñu wàccee kenn la ñuy topp mu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam léegi nag yàlla ne na qaala fashidu wa ana maakum min ashahidin da ngeen koy seede man ma bokk ci gi ñu seede ne yenente bi sallallahu alayhi wa moo leen gën mm-hmm. te bu wàccee yéen ñii benn liggéey ngeen am mooy wooteel ko moom moo tax Cheikhna Cheikh Saad Bihi di wax ci waxam juree di naan wal anbiyaau wal anbiya uxbiru mhm. yenent yi dañoo wàcc pour informer dikkug maami cheikh na cheikh saada bihi yenent yi dañoo wàcc pour informer dikkug maam cheikh na maam mi na doomu cheikh xataab mhm. yenent yi ku ci nekk sa mission moo nekk lan mooy génnee lépp loo xam ne bokkaale la woon waaye samp fi benn baat muy laa ilaha illa allah muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xam nga buur bu toll ni yàlla ponkol bu toll ni yàlla bu jëlee turam takkale koog benn tur ko nga xam ne kooku lu foor la dëgg la moo tax yeneen ci bi daan wax naan bay nii mhm. wa bayna rabbi sirrun mhm. azimun mhm. la yasmaahu l malakul muqarrabuun dëgg la xataa jibril dégguloo dëgg la mu ne sama diggante ak sama borom am na benn secret boo xam ne moo ci nekk secret bu màgg la mhm. ñu ne ko ndax jibril dégg na loolu mu ne déedéet moo dégg la alquran fa awxaa ilaa abdihi maa awxaa dëgg la de wallahi wallahi la ma déenteeg moom la ma yàlla dee mhm. jibril déggu ko mhm. kenn fekkeewu ko benn leer fekkeewu ko moo tax ma manaa wi naan lawlaahu maa kaana mulkullaahi muntaziman dëgg la de bu dul woon ak yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam yàlla du taxaw ndax lu tax moom moo fi indi lenn loo xamante ne pour gaa xam yàlla huwa alladi arsala rasulahu bil huda mm-hmm. wa diinil xaqi moo tax Cheikh na Cheikh Saada bi ne wal anbiyaa uxbiru dëgg la bi baatihi wa bushiru ah. ñoom seen mbégte moo ñu yónni leen ci kan lañ leen yónni ci xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam kon kooku nag bu Cheikh na Saada bi toppul kooku ñu joñ ñu dañ koy jàmbaaram dëgg la na ko ah set bu doon ne maamam wàcc na waaye sët bu toppul maamam ca tànk yi baaxee kon des ñu ko ñu mën a wax dara mm-hmm. kon cheikh na cheikh saada bi dundam gépp daf koo jox maam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam déggal ma ngay wax ci wasirtu maqasidi naan li alquran naan fa aw xaa ilay abdihi ma aw xaa mun a xaada mhm. an il qiyaasi man anhu qaat mhm. xayril malaayika il kiraami wa saat mhm. jibril su jibril radiallahu anhu jibril moom mi nga xam ne moom mooy aminul malaayika moom mooy sangu mbooleem malaayika yi moom jibril moom jibril waaw dafa mës a ñëw mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa waaw fekk ko ca fële ca xaaru xiraat ne ko yow de mën a yow ku mag ne ko maag yow ku mag ne ko maag yow ku mag waaw sallallahu alayhi wa sallam xool ko ba mu yàgg bopp bi ne ko mën a yow ku mag ngay laaj ci yow de man maa la war a mag jibril ne ko déedéet man maa la war a mag jibril ne ko xam nga benn bidéew bu daan fenk bidéew bidéew boobu chaque cinquante mille ans la daan fenk jibril ne ko fekkee naa ko cinquante mille fois sallallahu alayhi wa ko ana dhalika al kawkab moo tax ba yàlla di wax da ko ne wan najmi maa ngi uh-huh. giñ ci biddiw boobu daan fekk uh-huh. ida hawa maa dalla saaxibukum wa maa xawa wa maa yantiqu anil hawa moom du wax ci tey ak bakkanam cheikhna cheikh saada bi jàngal ñenent bi sallallahu alayhi sallam ci ay baat yoo xam ne baat yu gàtt gàtt la ñu ne ko kan la mu ne xayru nabiyina man faaqat nubuwatuhu mm-hmm. loolu doyul mu ne man ni ma bëggee sama maam yeneen ci amul kenn ku ko bëggee noonu jongo ma yeeg ku ci nekk boo leen jëlee teg leen ni ma bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ma ko gën a mm. inni uhibbu rasulallahi mm. sayyiduna hubban ah. taqaasara anhu al maalu wal waladu tabaarakallah alquran ñëw ne qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum mm. kon wallahu ghafurur rahim tabaarakallahu maa ngi woon nag tabaarakallahu ci Cheikh na saddu xeer bëgg bëgg gim bëgg tabaarakallahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ah, ndax cofeel googu nag tabaarakallahu fi mu ne nii mu ngi leer cofeel gi nga xam ne tabaarakallaahu ëmbal na ko sayyiduna Muhammad baarakallaahu macha allah kon nag tabaarakallaahu ñu bég lool Oustaz Mouhamed Fall gis ngeen lu mu déparé dañu bégal ci yontu yàlla Muhammad waxoon naa la ne la góor yàlla yi kenn la ñu bëgg mooy rasulullah sallallahu moom nag tabaarakallaahu tey nag dañoo bëgg a waxtaanee cofeelu Cheikh na Saddu ci rasulullah wa xayatu buñ ci génnee nag tabaarakallaahu mu wax ñu kane sayyiduna Muhammad mu ngi woon diggante tabaarakallaahu cofeel gi Cheikh na Saddu cofeel gi mu ëmbal maamam ci la nekkoon boobu ba léegi tabaarakallaahu di wane tagg yi mu koy tagg kon Mouhamed Fall dañuy bàyyi rek tabaarakallaahu sa tabaarakallaahu sunu gan yu yegg si mu yegg si rek nuyoo moom nag day def direct rek bàkkal ñu Seydina Mouhamed bu pare mu nuyoo kon nag tabaarakallaahu duggul ci rasulullah yi rabbi bi la ilaha illallah قبل مقام لا يرى سرواه ربي بلا إله إلا الله أخنا بالله أمن سواه وقبلنا كل ما نرجاه rabbi bi laa ilaha illallah baata ngi nii boo koy tudd doo ca teg leneen lu muhammadu rasulillahi sidna Muhammad mi may way moom yàlla taggeew ko abdalaay mooy sabaay moom yonen bur yàlla taggeew ko aminata mooy sa si jikko la ko way wa innaka laala xuluxil azimi bur yàlla yamul foofu nee wa ma arsalnaaka ila rahmatan lil alamin bokkewut ak wa ma arsalnaaka ila kaafatan lin naasi mooma doo doomi abdalaayi maami cheikhina cheikhna cheikh saadou labi شيخنا شيخنا شيخ سعد الأبي شيخنا شيخنا شيخ سعد الأبي والمامر فادل ابن مامن طالب الخيار قرقر تعالوا شيخ الخليفة تعالوا شيخ الأرخانة تعالوا شيخ البنانا مام سنو وسيلة شيخ الخضراء ماسنا مام شيخ محمد المامون شيخنا شيخ سعد بنينا بدل ونك رسول الله دنيو ركو دنيو سجود duñu amim leer te kenn duñu xam law laaw ma kaana wujudul fil wujud walam yakun lanaa rukuan wa sujud leen nii xul anil asiyaaw wa busitan asaaw wa alaawo xanaa xamoon ne yàlla Seyduna Muhammad yaag sa xeet def laa leen ngeen di gën di xeet muy xeet bi nga xam ne mooy digle lu baax te koy jafe muy xeet bi nga xam ne mooy tere lu bon te koy moytu muy xeetu kuntum xayrul ummati uxrijati naas taamuruuna bil maxroofi waxtaan aw naa anil munkar kenn du Seydina Muhammad yaqulu saadu nabi Muhammad wax ma kan mooy Seydina Muhammad rasulullahi wa xaatama nabiina baax na wa xaatama nabiina baax na yaqulu saadu góor ga nga xam ni mooy borom nimjaat ak saalihiina ma nga joobe maamam sayyidina Muhammad yaqulu saalibe borom nimjaat neena yàlla xool kooku ba mu yàgg mu ne ko wadduha wal layli idha saja ma waddaaka rabbuka wa ma qala moom yeneen ci bi yaqulu xam nga yàlla du waat ci waaye bu demee ba waat rek la muy wax loolu ñoral na ko moom yàlla. yaqulu saadu la bi Cheikhna Cheikh Saad bu neena. góor ga nga xam ni moom mooy maamu ñëpp ci ragal yàlla ki nga xam ni moo dàqa jaamu yàlla Cheikhna Cheikh Saad bihi ne. yaqulu saadu la bee Cheikh na Cheikh Saad bu neena. Cheikh na Cheikh Saada bihi borom saada lillahi wa saada alwara wa saada annaasi qaatibatan moom Cheikh. maami Cheikh na Cheikh Saad bu taxiw la yaqulu saadu la bee Cheikh na neena. xam nga yaqulu fi'lu mudaari ndax amaytu. yaa gaa nga fa. nee na yaqulu wax na saada bihi ki nga xam ne mooy taxal baayam. yaqulu saadu la bii Ah. xam nga kuy bàyyam moom cheikh na cheikh Sadou. Mm. góor gi dàq jaamu yàlla ñëpp góor gi gën a ragal yàlla ñëpp góor gi gën a kawe ñëpp góor gi gën a bëgg alquran ñëpp moom cheikh na Mouhamed Ba. Ah. xam nga lu mu wax bàyyam mu ne ko cheikh shuyuuxi abihi in kunta jaahilahu Mouhamadul Fadili zul fadli wal karami. man jadduhu Mustafa bil irtiq ma lahu ki doon na maamam yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam lépp te bàyyiwu ci dara mooy bàyyi cheikh na cheikh Sadou. jaadale kuy maamam rasulallah dëggal yàlla ne ko innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha wallahu dul fadl azim ngëneel yàlla ko moom da koy teg ci loxo ku ko neex najlu li faadale Muhammad kan mooy rasulallah dëggal ngëneel boobu yàlla jël ngëneel tog ko ci loxo sayyidina Muhammad cheikh na ne ko qasama arzaqal xalaayiqi ala yadihi fa oh, atala alladi qad oh. atala mu xamal kan mooy rasulallah. dëggal waa ji nee na fa lammaa araada Allahu an yaxluqa al-xalqa xalaqa al-arwaaxa nabiyyina Muhammad. kan mooy rasulallah. wa siddiqina wa shuhadaa wa saalihina Muhammad. kan mooy rasulallah. falaa tuuta min durrati l-bahjati anwaari zaati l-mustafawiyya Muhammad. fa huwa qamarun wal kullu hawlahu kawaakibu l-'izaam. fa ma jama Allahu l-anbiyaa moom sayyidina Muhammad. moo ci yàlla xool ba mu neexoon ne ko lu ma bind yaa ma ci gën a. laa ilaaha illallah. maanaam yàllaa ko xool ba mu ko neex. ne li ma bind daal yaa ma ci gën a. daa xool yeneen bi yàlla daa xool leeru yeneen bi mu neex ko. Uh-huh. dafa toog wéet. Uh-huh. yàlla toog wéet ci wéetaayam googu noonu rek mu ne ah man da jot na ma am ku ma wéetali. Uh-huh. gëdd jalaal ak jamaalam. amal ci benn leer laqad kuntu kanzan lam u'raf fa xalaqtu xalqa ba la ba leer ga génnee mu ne ko Ahmed nii sant ma mhm. leer ga di ko sant déggal maam Maodo fa xudratun mhm. minnatun mhm. azamun yooyu yëpp ay leer la yoo xam ne yàllaa ko moom muy ay anwaaru samadaniyat yàlla subhaanahu wa taala moom moom moom leer yooyu mu mm-hmm. jël kattan solal ko mbubbu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu jot ko mu ne ko mm-hmm. lii yaay borom mm-hmm. doole mu jël ko jox ko yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko lii yaay borom waaye nag wa maa ramayta id ramayta walakin allah rama képp ku ko mos a tooñ mi wente bi baal na la wa yumkuru bika alladina kafaru li yuthbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka wa yamkuruuna wa yamkuru allah wallahu xayrul maakirin Baay Cheikh na Cheikh Saad boo xam maamam yeneen eh, ci ba yàlla amalee leer gi ne ko Ahmed mii sant ma leer gi di ko sant ñoom ñaar ñoom ñaar ñu yàgg di sant nda ba mu yàgg yàlla amal ci leer ga ay moo tax Cheikh na Cheikh Saad bi xool leer ga ba mu yàgg mën na ko law laahuma. Mm-hmm. bu dul woon ak yow. kaanal wujud fi l wala ñekkul la daaru ko an wa sujud lenn du am ba loolu di am ba leneen di am ci loolu dara di fa taxaw ci loolu noonu bu dul woon ak yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du koor du am bay sujud mbaa xam nga ci njëkk yëpp julli nañ waaw waaye julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo dàq ci julli dëgg la laaj ma lu tax lu tax yonent Yàlla Ibrahima yonent Yàlla Moussa alayhi salaam mhm. sallallahu alayhi wa sallam dafa jóge laylatul isra wal mi'raj di ñëw yàlla jox ko cinquante julli mu ne ko demal mu wàññil la muy dem mu koy wàññi ba ba mu des juróom mu ne ko demal sama xeet ñaari juróom ñu amoon te duñ ko def sallallahu alayhi wasallam ne am naa sa delluwaat. kon mhm. koo koy borom kersa alxayaaw. Mhm. bi mu dellee wàcc ñëw màkkatal mukarrama yàlla nag yàlla dee ko ni jibril demal demal nga ne ko ku julli benn ma fay ko dix. Mhm. ku julli ñaar dina am vingt. ku julli ñett dina am trente. ku julli quatre dina am quarante ku julli cinq dina am cinquante cinquante julli yëpp dajaloo. waaye loolu yëpp pour mu dem nag faaw nga xaar ba nga jëlee witr shafaa ba noppi witr gi soog a ñëw mhm. mu jël ko wettali mu dem mhm. waaye nag benn julli bépp yeneen si boo xam ne mos naa am problème ci benn julli nga amee problème mooy xaafidu ala salawaati wa salaatil wusta mhm. borom xam-xam yi werante ne nee na salaatil wusta moom mooy julli tàkkusaan déggal Cheikhna Cheikh Saad Bou fanzur ila shamsi id ruddat li daawatihi wal badru shuqqan wa ashjaaru lahu sajadun keroog ba muy jant wa Mhm. boobu limaam Ali tàkkusaan raw na ko. Mhm. kookoo xam yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam. kookoo xam yeneen bi moom Cheikh na Cheikh. Saad dëgg la de dëgg ah. dafa ñëw ne. yéen saxaaba yi bu ngeen bëggee man ma bëgg leen. waaw yow yàlla subhaanahu wa taala moom moo ni. ci làmminu Jibril demal nga yeneen bi mu wax leen. qul fi awlu amra la. Mhm. impératif la. su fekkee ñii ñoom bëgg nañ man ma bëgg leen. ñoom nañ la topp te bëgg la képp. qul in kuntum ñoom fekkee bëgg nañ tuhibbuuna allaaha yàlla mu bëgg leen mm-hmm. fattabi'uunii na nangeen ma topp wa yaghfir lakum zunuubakum lan mooy bonus bi waaw benn bonus kot nga am uh-huh. mu yàlla jéggal la say bàkkaar tabaarakallaahu te kenn rek moo dañ ci kumpa mooy yàlla uh-huh. te ku yàlla setal wi ci ay bàkkaar nga dañ ci kumpa yow ndax yàllaa lay dee ku yàlla dee doo tëx dëgg la mbaa dégg nga dëgg la ku yàlla dee kenn du la jëw dëgg la ku yàlla dee doo tëx ndax uh-huh. laysa lahaa min dunillaahi kaashifa dëgg la زول ولا فندو إني أحب رسول الله سيدنا kan cheikh na cheikh saada bi nee na inni naka man uhibbu dama bëgg rasulallahi sama maam sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu bamta xasaraanu maal wal walado bëgg goog gi nga xam ne moom laa ko bëgg moo ma gënal alal moo ma gënal doom wala sa yabliqu misala maqabatiha sama bëggeel amul kenn koo xam ne nga jéem a naat sa bañ la ubulawaane walaaw loolu wajadado ahsha ahsha ila ma ila ma ila ma wala tuwaribu jublu wala taqado Ahmad Fadal. nee na ma bëgg yeneen bi. waaw sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. moo ma gënal man nag man nag lu neex laa bëgg te maa ngi yëg yuntu yàlla Muhammad sama gars yi toog daal maa ngi yëg Seydina Muhammad ci ñoom. sallallahu alayhi wa sallam maa ngi yëg rasulullahi ci ñoom. waxal waxal yaa ngi ci sëtu njool Màkka bi. Mhm. Cheikh na Cheikh Saada bi. dafa ni. ni ma bëggee yonent bi xubban taqaasara anhu almaalu wal waladu wa laysa yablagu mixchaara mahabbati xubbul ulal hula wal wal jadadu mhm. axsha ila nafsi min layla wa daratiha mhm. wala tuqaaribu jumlun wala daadu mhm. layla mooy jigéen arab bi gën a rafet déggal maam Mansuur Si bal qawmi ma ngi koy wax ca xasdaam bala ca majnunu layla mantaqa xam nga majnunu layla dafa bëggoon layla ba bu rombee kër layla miiri lay foon ñu naan kii dof na mu ne déedéet dof ma fii fóonu ma miir bi mm-hmm. waaye laylaa mi ci biir kër gi moom laay fóon bu xaj bi dawee génn mu koy raay uh-huh. ñu ne ko lu tax mu ne laylaa mi ci biir kër gi moom laay raay uh-huh. waaye nag law lal hawa uh-huh. lam turiqa dam an ala balalin wala ariqta li dikril baani wal alami dëgg la xam nga kenn du toog feen di fa tuur rongoñ dëgg la kon kooku am na lu ko naqari mbaa am mbaa am na lu ko neex Cheikh na Cheikh Saada bi nee na boo dajalewoon woon jongoma yi gën a rafet ci àdduna mm-hmm. ki gën a rafet ci arab muy Layla ki gën a rafet ci nit ku ñuul ndax ñaari xeet moo am arab ak ajam ku dul rek ajam nga bokk képp koo xam ne arab nga Layla ci dàqoon ajam daadu moo ci dàqoon boo leen jëlee teg leen ak teg fonds monétaire international banque yeeg lépp boo leen tegee yéen ci sallallahu alayhi wasallam moom ba mooma leen gën a innal muhibba li man yuhibbu muti'un dëgg la dëgg la nit ki ci nga bëgg rek nga mën a topp dëgg la te nag munoo ne sama maam mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te doo ko topp te almaru mahamman ah borom bari yàlla war ba ca Madina waaw moom la yàlla jagleel ñaari téeméeri tur ak benn sa turandoo Seydina Muhammad mooy saka Abdoulaye ah. ibnul Abdoulaye yéen a ma xeeru xalxulaay yeneen mooy muxtaaru yow ma xeeru alamiina xeeru awaliina xeerul muminiina yeneen mooy xeeru muxsiniina yeneen mooy Bushra sa turandoo mooy Nuna yeneen mooy Xawsun sa turandoo mooy Xaysun yeneen mooy Adiyatulaay yeneen mooy Nixmatulaay Raxmatulaay imaatul wustaa saddan muxtaar yàlla na ko yaa yoon mu zammilu xum leela ilaa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa ratilil qur'ana tartila loolu doolu yàlla na ko yaa al mudassiru qum fa anzir wa rabbaka fa kabbir wa thiyabaka fa tahir wa rijza fahjur wala tamnun tastakthir loolu dara neexu ci xam nga lu neex uh-huh. inna fatahna laka fathan mubina uh-huh. li yaghfira laka allahu ma taqaddama min dhanbika lii kett moo neex dëgg la te yàlla nee na yeneen bi innama yuridu allahu li yuthiba ankumu rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tatahira dëgg yeneen ci bi yow ak sa njaboot mm-hmm. dama leen a laabal laabal bokk leen jege laab dëgg la déggal na cheikh saada bi dëgg la li maa taqaddama jéggal naa la yàlla jéggal na la say bàkkaar dafa toog di naafi la ba tànk yee mm-hmm. jël saako def ci xeer tag ko ci ndigg yëpp mm-hmm. saako bi mu noppi saako bi nekk or ne jaama mu ne ko leen rek laa koy dee mooy jaamu yàlla subhaanahu wa taala muy jaamu yàlla muy jaamu yàlla ba yaram bi yëpp néewi yaa Aïcha wax li yaghfira allah maa taqaddama min dambika maa ta'akhkhara jégal naa la say ak say bàkkaar mujj yàlla koo ko waxee noonu waaye moom amul bàkkaar xam nga lu tax taharahu min qabli dha li dha wa ko ci laab bu njëkk ndax yàlla moom amul lu tilim ci boppam ki may wax nii ki may wax nii moo gën a baax gën a baax gën a tabe ñëpp moom yeneen si bi sallallahu alayhi wa sallam li xëy maratibu déet ngay dox bay gis ba ko yàlla naan wa innaka la ala xulqin azim ku dul moom yaa laytani kuntu turaaban déggal Cheikh ne nee na ak a neexoon ma doon pënd suuf nga xam ne moo doon takk ci sama dàll maam seggi ni walayta akramani bi wasde Cheikh na lan moo la jaral lii mu ne bëgg gi ma bëgg sama maam Seydina Muhammad ba mënu maa dem ci moom ba mu ba man fekkeew ma ci moom dara kullu nabiin yawma yubxasul bashar li ya neex kullu kullu nabiin yawma yubxasul bashar déggal alquran fa ma tanfaahum shafaatu shaafiina fa ma lahum an tadkirati mu'ridina ka annahum xumurun mustanfara farrat min qaswara déggal alquranul karim la aqsim bi yowma alqiyama wala aqsim bi nafsi lawama ayaxsabu linsanu lan najma azama bale qadirin ala nusawiya banana bal yuridu linsan li yafjura amama déggal alquran ida waqaat alwaqia laysa li waqaatiha kadiba xafidatu rafia ida rujat alardu raja wa bussat aljibalu basta fa kanat habaa munbatha wa kuntum azwajan salasa ba xam nga ne ëllëg yowma alqiyama kenn du atte kenn ku ne yaa atte sa bopp kullu nabiyin kullu nabiyin yaa ma yëpp xasul basha sama ba ca gànnaar nee na seetul suratul isra iqra kitaabaka kafa bi nafsika al yawma alayka xasiba kullu nabiyin yawma yubxasul bashar taxta liwaa lil Mustafa xad taxar billaahi gis nga yeneen si bu nekk bu ful bi dawee ñëw ci yow déggal cheikh na yow mun azimun ataani bi bihi kitaabul bayaani bés la boo xam ne bés bu yàlla wax ne biir ni ñëw te boobu yàlla subhaanahu wa taala bu rayee jaam ñëpp day wàcc ci suuf naan li ma nil mulkul yow li ma nil mulkul yow kenn tontuwul yàlla fëgg dënam ne lillahi alwaahidil qahaar moom dong moom mooy buur fuul bi yëpp daw jëm ci abul bashar maam aadama alayhi salaam mu ne taluma leen ndax lan fa talaqa aadama min rabbi kalimatin fa taaba alayhi innahu huwa tawaabu rahim seen baam ma ne baat ya nga xam ne yàlla moom la sa maam aadama ba mu wax ko déglu wax la yan baat la walladi faaqa si waaw minal baraya bihu daaw xata badat kat bu sumaaw fi arshika al muazami wa fil jinaane wa suqum mu ne ko yow defal nànk yow yàlla subhanahu wa taala maam aadama ba koy ba mu ne laa ilaha illa allah muhammad rasulullah qaala rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna min a xaasirin yàlla na ko foo xamee li mu ne ko yàlla xaaral sëñ baa mën a xaaral yow yàlla lépp loo bind arsh katabtuhu ala al arsh bi ismillahi subhanahu subhanahu wa taala mu teg ci lan tur sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax kullu nabiyyin kullu nabiyyin ama yabxasul bashar yeneen ci bu nekk buñ demee ci moom nuux dañuy dem ci moom déggal alladina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu muhtadun wa tilka hujjatuna ataynaha ibrahima ala qawmi narfau darajati man nashau inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadayna wa nuhan hadayna min qablu wa min dhurriyyatihi dawuda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa haruna wa kadhalika najzi almuhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min as-salihin wa ismaila wa ilyasa wa yunusa wa luta wa kullan faddalna ala alalamin wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim waju tabay naa xam li ma soxla mooy bépp yeneen si bu ñu dawee ci yow cheikh na cheikh Saadu bi neen kullu boobu min alfasil umum la bàyyiwul kenn particu particularité de généralisation la kullu nabiyin bépp yonent bu ñu ñëwee ci yow da ngay daw kenn rek mooy taxaw kullu nabiyin yow ma yubqa asul bashar keroog sa bisu njàqare ba kenn koo xamante ni yàlla subhanahu wa taala mi ngi naan yow ma yafirru mar'u min axihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli mri'in minhum yawma idin sha'nun yughni ku ñu dam ci yow nga daw kenn doo nga moo naan ñëw leen fii bienvenue welcome Seydina Muhammad la taxtali wa maam Cheikh Cheikh Sadou Abe wala Cheikh Mouhamad Fadal nee na. xad yaa Xadija doomi Xasana wul mën naa maamam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kot mooy taxaw taxta liwaayil Mustafa qad saqar ñoom ñëpp duñ ànd ak seen sago yeneen yi kenn du ci ànd ak sa sago ku dul sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom dong la yàlla xool na ko wa duhaa والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى xanaa wax ji jeex na waaye lu ci def wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda dinaa la jox ngay ràmm ba nga ne doy na yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne déet may wax doy na lu dul sama xeet ñëpp dugg biir aljanna yonent yëpp dinañ jote ci rambu Seydina Muhammad wala bi yib daay dil kasa ay waay su ngeen si rambul perte nga lu ilaa jën waaw subti xaari ay waay ñoom ñëpp ku ci nekk sallallahu alayhi wa sallam kott la ñu yaakaar bi palil baari est-ce que xam nga ne si bu dekk da ngay pauvre pauvre gi xam nga mooy lan mooy da ngay doon nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doo ngay dekk fële ca Yasriba madinatul munawwara mu jóg desi du njàpp ga nga xam ne moom la jàpp woon keroog ba muy leetul isra wal mi'raj bu yeewoo moom la ko Jibril di indilaat mu jàppee ko yëngal njañña ndox moom moom mooy yee yàlla yi ku ne jub naan fu ñu jëm fu ñu jëm sallallahu alayhi wa sallam dox jub ci yàlla waaye nag ku nekk yaata sa bopp iqra kitaabaka kafa bi nafsika al yawma alayka yàlla subhanahu wa mu ne nit ku ne sa jëf yow yaay taxaw di ko atteel sa bopp durée boobu dina toll lu toll ni cinquante mille ans kon ana lu fi jara daw bay daan lu dul bëgg yenent bi sallallahu alayhi wa ku ko bëggul perte nga bëgg ko bëgg ko képp moom ngay def si àdduna nga neex bu nga dugg si biir bàmmeel nga sieste xam nga bàmmeel dañ fay sieste mhm. sieste gi mooy leen mooy bëgg seen sallallahu alayhi wa sallam julli ci moom da ngay bëgg maami cheikh na cheikh maami ne doomu cheikh xataab mu sax ci yow da ngay bëgg maami cheikh hadrama doomu cheikh sad bambaari mu sax ci yow da ngay bëgg maami cheikh sidaati sharafa mu sax ci yow da ngay bëgg maami soxna jimbira doomu cheikh hasan mu sax ci yow xam nga lu tax moom kot képp dong moom moo la mën a ràmm foofu moom yeneen si bi képp la amul keneen falam yajib daay til kaza ndeysaan waaj ñëw ci moom sallallahu alayhi wa mhm. bi mu ñëwee ci moom mu ne ko man daal lenn doog moo ma neex mooy dama laa bëgg lenn rek ma neex lenn rek moo ma neex mhm. mooy dama laa bëgg sallallahu alayhi wa sallam ah nit ki moom ki nga bëgg yaa ak moomay nekk rek dëgg la te man ahabani kaana ma'i fil janna ku bëgg yeneen bi yaa nga bi raajana ak moom kon nag nañu rafet njortu ni képp ku bëgg yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam aljanaay sa kër waaye dafa am góor goo xam ne mhm. cheikh na cheikh saad bi ni mu bëgg yeneen bi dafa doy waar dëgg la xam nga lu tax waaw ni ko kenn bëggeewul la ko bëggee waaw ñëwal <laughs> fee dafa ne yaa layta nii kuntu turaba na alihi wa laytahu akramani bi waslihi damaa bëgg sama maam sallallahu alayhi wa sallam mhm. ba nga xam ne pepp suufi doon takk ci dàlla mi aka neexoon mu doon man dëgg la fële mu ñaan mu ne yaa layta nii kuntu bariix li justati nabi sabiix ka yabral qalba jarix damaa bëgg bàmmeel gi nga xam ne mu ëmb sama yaram maam Seydina Muhammad ak a hmm. neexoon mu doon man ñu nekkul tax Cheikh na Cheikh Saada bi mu ne ndax sama cofeel ci yeneen si mën a wàññeeku loolu doyul mu ne damaa tëdd ba sonn mënu maa nelaw hmm. ñu ne ko Cheikh na lan moo la teree nelaw bopp bi metti mu ne déedéet hmm. bëñ bi metti moo la daaneel mu ne déedéet lan moo lay topp lan moo la teree nelaw bopp bi metti la mbaa lan la mu ne déedéet dara terew maa nelaw lu tax cheikh na mu ne ah bëgg sama maam sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam képp bittu mhm. wa ayni lam tanam damaa tëdd ba sonn bëgg a nelaw mhm. mënu maa nelaw samay bët wexaat mhm. min xobbi sayidil umam ndax bëgg ki nga xam ne mooy sangu xeet wi yaa abada zaqa saqam te eh, bi la feebarama dal moo baax ñu ne ko lu tax mu ne ndax yàlla subhanahu wa taala waxoon na ni képp ko bëgg yeneen si bi ma jéggal la say bàkkaar moom léegi moom dem na ba feebar lenn rek la feebar muy bëgg rasul bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa képp moo ko feebar aa léegi feebar googu lan moo ko mën a faj bëgg yonent bi képp ndax nit ki la feebar mën na laa faj dëgg la moom bëgg yonent bee ko feebar mhm. tant que jugul way ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu du mo a faju moom la maa ars da baax naan xobbu taaha mhm. lil muznibina najatun wa amaanun mhm. kon ci bi sallallahu alayhi wa sallam adduna bi kot moom moo fi nekk dëgg la benn mbégte la am seen baama la mu wax muhammadun zinatu dunya wa lazzatuha benn bànneex moo am benn neex-neex moo am kenn ngay dund doo amee stress mooy sayyidil wujudi wa alam shuhud loolu akramo taaxayaasin muhammad mooy sa turandoo rasulillahi sama turandoo mooy ki yàlla xool ne ko alquran wàcceew ma ko ngir yow waaye dama kaa wàccee ngay waar nit ñi pour ñu delloowaat seen xel ci yàlla rasul akramo taaxayaasin alquran yàlla da koo jël ne ko taaha ma anzalna alayka alqur'ana li tashqa wàcceewu ma ko ci yow ngir ngay rey sa bopp waaye ñii nga koy waaree pour ñu delluwaat ci yàlla arasulul akramu taayasin xayral baraya mooy ki nga xam ne moo toog ba mu yàgg mu ne ana minallahi wal mu'minuna minni sayyidul imami mooy sangu xeet wi saydu rusli mooy sangu yenent yi jaadu xal déggal mu ne moom yenent bi sallallahu alayhi wa ana min allah wal mu'minuna minni man kott maa jóge ci yàlla waaye ñëpp ci man ngeen jóge ileekaar jooten kalami yow yaay ki jóge ci yàlla déggal baa maa jor gu ma siisa nee na min al karimi ata wasful karimi ila abdul karimi fa kunna xaalisal karami maajoor kumba siise gorga ja caaka njaay neena wa kulu baytin wa in alal badi ubi wujudu na xayra xalqi xalqi dami muhammadul mustafa muxtaaru taayib nu abdulaay ah. ah. xayru xureshi lumi lumi ah. aynu naymu nayim wa aynu ruxyatu yawma taxaaburi taxzalatal qidami min alkarim wa ata wasul karim ila abdul karim wa tuxda wa zil karami ilayka arjo antal karami Muhammad kan mooy Rasulullah ala al-kuffar ruhama baynahum taraahum rukkaan sujjadan moom yeneen si bi sallallahu alayhi wa sallam dem aljana sopp ko dem aljana yaakaar ko dem aljana boo ko tuddee doob sa yàpp yaram alaam na safara xam nga waaja rasulillahi saa ma adatu nafsi min almuminin allahu akbar mu ne su ma toogee benn waxtu mhm. te gisuma yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. bu leen ma wàññeeti ci ñi gëm kon yeneen ci bi deewul dëgg la yàllaa ne laa taxsibanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaatan ahyaawu inda rabbihim mhm. yurzaquuna tànge xaal la ko def kon yàlla mu ne képp ku liggéey ci yoonu yàlla gii deewoo Mm-hmm. waxuma laa ki nga xam ne moo tax ñu xam lan mooy yoonu yàlla. dëgg la sallallahu ma wa sallam. ah. sama heure benn góor ga toog ba mu yàgg. daa neex rek waaye sama heure ba de. <laughs> waaw ndeysaan góor ga toog Cheikh na Cheikh Abdel Qadir Jilani. sultaanil mm-hmm. awliya. ki nga xam ni moom mooy ndayu tarixa bi. tarixa bu am. ci moom nga soqee ko. ana Abdel Qadir cheikhi kulli tariqati. mu ne dama toog ba mu yàgg sama maam sallallahu alayhi wa sallam ra'aytu rasulallahi yaqadatan baada qabla salat azahar mhm. dama toog di jàpp pour waajal laata salat azahar di jot mooy jullit tisbaar mhm. sama maam sallallahu alayhi wa sallam ne cëpp sama kanam mu ne yow sama doom la moo tax waxoo li ma laa tatakallam mhm. iftax faaka sallallahu alayhi wa sallam na ko ubbil sa gémmi nat yi nganam nganam tëf na ko waxal keroog mu commencé génn di jàngale léegi nag ñiy taxaw naan sallallahu alayhi wa sallam dee na ñoom fan lañ teg loolu. Ah, yet wa nga xam ne gaa ya baaxee sànni woon nañ ko cheikh na cheikh saada bi dox ba jamono foraat yet woowu mhm. ñu ne ko cheikh na loo wax mu ne gaa ñi nga xam ne dañu naan sama maam dee na ndax dañoo dégg aaya ba innaka mayituuna na mayituuna mhm. ndeysaan te fàtta nañu yàlla lam wax yeneen ci ma anzalna alayka alqur'ana li tashqa mhm. illa tadkiratan li man yaxsha alqur'an wàccewu ma ko ci yow ngir nga ciy sonn da ko koy ci yow wax ngir nit ñi di ci delloo seen xeel ci yàlla ci ñoom ndax mooy mi ci sallallahu alayhi wasallam moom ragal yàlla ci moom la fekk baax mhm. ndax ki jóge ci yàlla xam na kan mooy yàlla dëgg la faarifuni mhm. qabla an taabuduni mhm. fa in lam taarifuni fa kayfa taabuduni yàlla da nga koy xam njëkk nga koy jaam innama yaxsha allah min ibadihi al ulama kenn xamul yàlla ku dul ñi nga xam ne yàlla xamal na leen astuut te mooy wattaqullah wa yuallimukumullah cheikh na dox ba mu jëm ba jigi ba jëmmi jamono ne fala tazun Mm-hmm. bul njortu ni anna nabi sallallahu alayhi wa sallam dee na qad maata mawtan yaaxa bi mm-hmm. bal naama noomal moxta bi wala di minu qad wasar xam nga ku ku wax loolu mm-hmm. mooy ki toog ba mu yàgg rek mu ne man kado laa ci àdduna dëgg la yaa zakariyaaw inna nubashiruka bi gulaam ismuhu yaxya lam najal lahu min qablu samiya yàlla day jël ay doom yoo xam ne kado la leen di def cheikhna cheikh Saad Bou Ayyubi dafa bokk ci doom yi nga xam ne yàlla daf leen def kado ci àdduna moo tax bu toog ba mu yàgg rek xaal bi dugg ko mu ne alhamdulillahi alladi li yaa wahab alhamdulillahi alladi li yaa wahab ah yaa xadijatu doomi xasan na wulu mën naa sa maam de cheikh na cheikh saadu bihi ma ngay joobe boppam moom alhamdulillahi alladi li yaa wahab ah ki nga xam ne nag mooy cheikh na wulu xasan na sa maam de cheikh na cheikh saadu bihi ma ngay joobe boppam alhamdulillahi alladi li yaa wahab cheikh alxadraame doomi Cheikh Sidaati Baaba sa maam ja Cheikh na Cheikh Saada bihi ma nga jóge boppam Cheikh Sidaati Sharafa sa maam ja Cheikh na Cheikh Saada bihi Limam ki nga xam ni Cheikh Cheikh Cheikh Mouhamed Taqila Soufi la borom 31 décembre sa maam Cheikh na Cheikh Saada bi ma nga jóge boppam nee na maa ngi sant yàlla ci cadeau gi nga xam ne yàlla defal na ma ko ilman xam-xam gi nga xam ne yàlla jagleel na ma ko ilman wax ilman jamal ma ci ilman ilman xam-xam gi nga xam ne yàlla mooy jël xam-xam xamal ko ku ko neex Cheikh nee na ilman ndax wattaqullah wa yuallimukumullah wallahu bi kulli shay'in alim da ngay xam xam-xam da ngay ragal yàlla yàlla xamal la xam-xam boo xam ne jàngoo ko jananana ilman xam-xam googu noonu ci la cheikh na cheikh saada bi jël ci la sukkandiku ci li ba ne ilman lu ci topp wa xilman alxayaaw da ngay am kersa yàlla def la walu yi nga mën a jiita nit ñi watuxaa ragal yàlla gu sax dàq xam nga soo bëgg soo gisee ku ko am da ngay jàpp cheikh na cheikh saada bi hil kazan nazab nee na népp nag yàlla def na ma man yàlla def na ma lan bi annani yàlla def na ma ma bokk min nasli taaha ahmada bi annani xutbul wara baada nabi yàlla def na ma ma bokk ci buumu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi annani xutbul wara baada nabi gannaaw sama maam yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw sama baay cheikh na cheikh muhammad fadil ibnu maamin man maa teg jàng tànk ci jamono iskulum shaqayta bi mashrabi yëpp seede nañ ko ndax alxawsu laa yaxiitu an nasli nabi ki war a toog chaise wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiina du génn lulu deretu sayyidinaa Muhammad wanamal baani fi ummatin ci xeet wii képp koo xamante ne jaayante nga ak waa kër sayyidinaa Muhammad adxalallahu yàlla dina la dugal naimal jannate aljana gi nga xam ne yàlla subhaanahu wa taala moom moo ko moomal boppam waaye ñu ki raw si ki cheikh al ñi fi raw Cheikhna Cheikh Mouhamad Fadal ki jaamu yàlla ci ci lim ñako doon di jaaxal da ko baaw di ko di gënal bor yàlla yëpp xam ko ci teem moolam ko den ko doon ñeel Cheikhna Cheikh Mouhamad Fadal ku di maane alhamdulillah wa sallallahu ala nabi wa Mustafa na wallaahi maa ngi daanu nag wax dëgg fa yàlla xam nga lii nag mu yëg Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa ñi waxtaanee sëtu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di wax li mu wax rasulullahi waxuñu ki yay wax waaye dañ ne sëtu rasulullahi mooy wax li muy wax rasulullahi sallallahu alayhi waaye nag ki ñu tuddee Sayyiduna Muhammad mu Muhammad Oustaz Muhammad nii <laughs> toog nag tabaarakallahu di ñu tuddal li maamam ju tedd ja wax maamam ju tedd ja muy rasulullahi ah. sallallahu alayhi wa sallam mu président émission bi. <laughs> Aboubacar Siddiq toon nii. baarakallaahu <laughs> loolu nag tabaarakallaahu xam nga ne mbégte la. wallaay kon Oustaz Mouhamed bég ne loolu tabaarakallaahu ci teewaay bi. yàlla xam na ko ne fi mu ne nii tem mu ñëw ngi yëg yontu yàlla Mouhamed ci waxtaan gii ngay waxtaan. Mm. man lii laa bëgg damaa bëgg kuy kuy wax lu neex. <laughs> te yaa ngi ci tabaarakallaahu di wax lu neex yàlla na la yontu yàlla Mouhamed teel. xam naa ñu bàyyi la nga tàggatoo rek bu président Aboubacar moom it mu tàggatoo. Mm. ñu tabaarakallaahu kii ba beneen yoon ndax ñu ngi may signaler heure bi. Mm. ba ba léegi maa ngi kontaan lool nag kon bismillah ñu bàyyi la nga tàggatoo toog wallaay dëgg la Mouhamed ñu ngi mhm. santaat yàlla bu baax a baax mhm. ndax lépp lu ci jub rek ci moom la dëgg la lu ci dëng it tamit ñu xam ne ci jàmbu doyadi bii la dëgg la as jàmbu doyadi bii bëgg nekk jaamu yàlla mhm. di ñaanal ñëpp nag dëgg la képp koo xam ne yaa ngi dégg suñu kàddu ak ku ko déggul waaw njëggaluk yàlla yàlla na tàbbi ci yow. amiin ak jàmmuk yàlla yàlla na tàbbi ci yow ak darajey sallallahu alayhi wa sallam yàlla na nekk ci nag barke cheikh na cheikh saade bii yàlla ko yàlla wasaare fépp ba képp koo xamante ni yaa ngi nekk ci kaw àdduna bi ak ci biir suuf mm-hmm. yëpp nga yëg cofeelu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ngi mi ngi ci yow di ñaanal nag sama wasila Cheikhna Cheikh Mamina doomu Cheikh Xataab uh-huh. di ko ñaanal yàlla may ko fanu gudd uh-huh. ak képp koo xamante ni njaboote na ko insha allahu taala uh-huh. kon ah gàtt na waaye neex na macha allah alhamdulilah wallahi ndeysaan wallahi ñoo leen gën a bëgg lu bari ci xam-xam gi waaye nag ci waxtaan gi teg ko ci xam-xam mm. bëggal ñu ci rasulullahi kontaan nañ loolu tabarakallahu ci ñëw bi kon nag dañuy bàyyi tabarakallahu sir Aboubacar Saddiq rek xam nga Muhammad toog ak Aboubacar Saddiq tabaarakallaahu Aboubacar Saddiq moo ko ñaareel fu ne mu ñaareel ko fa kon nag tabaarakallaahu kon nag ñu bàyyi <laughs> euh, mu tàggatu sida Aboubacar bisimilah waaw alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi macha allah alhamdulilahi ala kulli haal waaw di rafetlu bu baax émission bi di si am contentement bu rëy rëy rëy rëy ndax ndeysaan Mouhamed <laughs> Mouhamed moo baax rek mhm. yàlla xam na ne moom ba ma koy xam mhm. amaana man maa ko mag mais dañ ko mhm. sono lool lool lool lool lool musuma xalaat ne sax àdduna dina dox ba ñu boole ñu si genre oto yu mel nii te boo nekkee ndaw nekk si yoonu siraatal mustaqim lii rek dafa neex tey jii bu ngeen neexoon ngeen woote émission caaxaan mais defu leen ko da ngeen ne ñëw leen ñu tagg Seydina Mouhamed ki gën si jaam kon ñun dañ si am mbégte contentement bu rafet rafet di yàlla lii yàlla na am tànku gannaaw te tànku yonent bi sax yonent bi mm-hmm. amul tànku ginnaaw mm-hmm. lépp loo si def yokkute rek nga siy jële mm-hmm. ñu ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm sutura ñuy kontaan lool lool lool suñu kilifa diine yi yàlla yàggal leen fi te Sénégal yàlla dool fi jàmm incha allahu rabbi ñu ñaan yàlla muy dem bay nekk ay émission yu yaatu yaatu yaatu yaatu incha allah incha allah amin lii lu ñu départ la rek yéen kontaan nañ lool tabaarakallaahu ci teewaay bi ñaan leen yàlla def yeneen yeneen émission ngeen ñëw bégal ñu ci Seydina Muhammad loolu moom tabaarakallaahu lu yàlla dogal la kon kontaan nañ lool ci yéen teewaay bi dagg ngeen seen temps ñëw tabaarakallaahu keppaaru Siré nag nii lay demee saa su ne maa ngi nuyu nag tabaarakallaahu Issa Issa nag moom suñu soppe la tabaarakallaahu Issa bu sëñ baaba kër si maa koy nuyu maa koy bégee man nuyu nag tabaarakallaahu Aboubacar Ndiaye di suñu xarit di waajal bis Aboubacar Ndiaye le 24 décembre incha allahu taala fële ci yëmbal marché lambda incha allahu taala ki nga xam ne nag mooy taxaw tabarakallahu ci wàllu animation bi mooy Mawlaay Abdoul Aziz Ndiaye bu Cheikh Sidi Hadj Malick bu jàlle ne tabarakallahu Oustaz Souleymane Diop ñëw ak Tidiane yi bégal ñu ci keneen Cheikh Tidiane spécial Cheikh Tidiane lay doon le 24 décembre incha allahu taala ci kàttanu yàlla mbokki nag ñu bàyyi ko xel bu baax a baax bu loolu jàllee nag ñu yëgal leen le 31 décembre tabarakallahu 100 pour cent Hadji Pape Gueye tabarakallahu ñoom ñëpp ñu ngi ñu ngi waajal bis bi nga xam ne mooy bis sopp yi fële ci Kër Massar 100 tabaarakallaahu lenn rek la moo ci am mooy dañuy ñëw di bégal gars yi ci Seydina Muhammad tabaarakallaahu ñu ànd ceeg nag seen soppi bu baax bi tabaarakallaahu muy xaaji Pape Gueye 100 pour cent Pape Gueye ñooy ñëw ànd ak Pape gi ñu bégal leen ci tabaarakallaahu Seydina Muhammad loolu nag tabaarakallaahu di la fële ca Kër Masar incha allahu ci benn bis boo xamante ne bis bu am solo la mm-hmm. muy la 18 incha allah novembre fële ca Sokone ki ko aaye muy Chérif Mouhamed Chérif Ahmed Rafahi. Mhm. Aydara doomu Cheikh Mouhamed Lamine. Mhm. mooy sargal baayam. waaye le 19 bi ah boobu tamit gàmmu gu rëy la foofu ci Sokone mu Chérif Omar mhm. Aydara mhm. moom mooy woote foofu Sokone incha allahu taala le 31 décembre mhm. dafa am benn chérif boo xam ne limaam Taqiyullah moom mooy woote fële ca Louga incha allah 31 décembre ndaw ya daan dem baali mu ne leen kaay la ñu tagg yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam kon kii moo bëgg maamam kii mooy jëfee ndigalu maamam di ci woo ñëpp nag incha allahu taala loolu mm. baax a baax sookoon lay xewee. incha allah incha allah ndeysaan sallallahu alayhi sa sallam loolu jàll yi nag ba léegi maa ngi leen yëgal gàmmu anil gàmmu anil bi nag tabaarakallaahu fële ca ngumbu ngéwél Habib Ndiaye moo ne ma jàll leel ko ko gàmmu anil fële ca ngumbu ngéwél ci ndigalu tabarakallahu sëriñ Babacar ci Mansour waaye nag tabarakallahu famille Seydi Aline Boye incha allahu taala di ci jiital sëriñ Mbaye Boye ak mbooleem famille bi yëpp ñoo leen yéegal gàmmu anel fële ca ngumbu ngéwél incha allahu taala samedi lay doon le 11 novembre 2023 ñu yéegal ko ñëpp nag bàyyi loo ko xel ñëpp incha allahu taala bu ngeen ñëwee ñu bëgg lante tabarakallahu ci siduna Muhammad mbokki mu ngi noonu keppaaru siiraan gi dañuy ñëw rek bëggalante ci yontu yàlla Muhammad ba zëdëg jàmm incha allahu taala ñu ñëwaat ak tabaarakallaahu ci beneen poso ànd ak Babacar Laay bu tabaarakallaahu euh, maam limaamu laay mu bëggal ñu ci yontu yàlla Muhammad wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Enfin prendre le temps de lire et de s'informer véritablement. Détente, loisirs, l'actualité. Aimer l'actualité avec les plus belles signatures du Sénégal. Un reportage, oui, mais... dama ne bi ngeen doon xaar tàkk na dee Leral TV. enfin prendre le temps de lire et de s'informer véritablement. détente loisir l'actualité. ay l'actualité avec les plus belles signatures du Sénégal. ay reportages yu yéeme. dama ne télé bi ngeen doon